asalaamualeykum mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci programme boo xam ne yaakaar nañ ne dina war a soxal ñenn ñi rawatina ñi nga xam ne dañoo jàng français am luñ ci xam ba noppi bëgg mën a lire arabe ñoom day programme bi yaakaar nañ ne dina leen war a dimbale lool ndax dañ ciy fexe bay jàngal nit ki mu mën a lire ci arabe ñu jaare ko ci fukki étape maanaam ci fukki étape la ñuy jaar ba mën a jàngal nit ki ngir mu mën a liir ci arab te itam ci fukki étape yooyu dañuy sukkandiku bu baax ci langue française moo tax mu tudde ko taalimul qiraa al arabiya abra ashrat marahil yaani bi wasitat al luga al euh, bu dee ci français mu tudde ko apprendre la lecture arabe à partir de dix étapes à l'aide de la langue française c'est-à-dire kon nan lañu sukkandiku ci langue française ba mën a jàngal nit ki mu mën a liir ci arabe ñu jaare ko ci fukki étape ci dix étapes comme dix étapes la nag tey incha allah rabbi étape bu njëkk bi rek muy premier étape bi ci la ñuy yem bu soobee yàlla euh, moo tax ma ne al marxala al الأبجدية العربية الأبجدية العربية تتكون من ثمانية وعشرين arabe. L'alphabet arabe compte 28 qui sont kon étape bu njëkk bi lan laa fi jàngale mooy alphabet arabe ñaata lettres ñoo ko composé maanaam liifantu ijjantu arabe ñaata araf lañ ci am mbokk yi alphabet arab 28 lettres ñoo ko composé kon ñaar fukki lettres ak juróom-ñett ñoo tënk liifantuy arab yi vingt 28 lettres yooyu nag yan ak yan la mbokk yi nañ ci dem incha allahu rabbi mbokk yi lettre bu nekk dinaa ko prononcé ñaari yoon incha allahu rabbi en même temps ngeen di gis transcription phonétique bi ci français xaaral ma zoom ngir mu gën a leer voilà defe naa ne nii dina baax alifun alifun baaun baaun taaun taaun saaun saaun jiimun jiimun xaaun xaaun xaaun xaaun ma yéeg ma yéegaat tuuti ma yéegaat defe naa baax na nii daalun daalun daalun daalun raaun raaun zaayun zaayun siinun siinun shiinun shiinun ma yéegaat ñaar rekk ma dese fii ñu soog a dem ci beneen page bi ayo soodun soodun doodun doodun boodun bi daa mel ne transcription bi leerul feeñul bu baax de ah xaara kon doodun doodun voilà ñu dem ci beneen page fii nag bala ma zoom day am lu may leeral bi too un la dinañ ci ñëw mais da ngeen gis transcription phonétique bi day fii dañoo def T H 2 A O U fii ñu def T de A O c'est-à-dire fii too un la bokkut ak taa un bi am ñaari tomb yi muy deux points yee ca kaw kooku taa un rek la muy too un moom ngay am fii buñ sumee dina gën a leer incha allah voilà gisoo too un too un mais boo defee th bi moo la jax to donte nag comparaison n'est pas ndax am na prononciation yoo xam ne ci arabe rek la am français du ci mën a am mais dañuy jéem a xool rek nuñ koy négocier mais ki nga xam ne TH bi day compliqué ci moom mën naa jàpp nii rek taa un mu gën a simple ci moom waaye nag li wér mooy bii daal moo gën a baax waa loolu laa doon préciser ñu dem aywa too un too un vaa un vaa un aynun aynun gaynun gaynun faaun faaun qoofun qoofun kaafun kaafun ñaar yi nag ñu bari dañ leen di jaawale am na yoo xam ne buñ nee xoofun rek duñ mën a wax kaafun mais bokkuñu bii xoofun xoofun bii kaafun kaafun bii sax am na ñoo xam ne transcription phonétique bi dañuy indi rek kii kii voilà mais bii daal xoofun xoofun bii kaafun kaafun aywa ñu dem laamun laamun ñu yéeg miimun miimun nuunun nuunun hëun hëun waawun waawun yaa un yaa un mbokki yi defe naa ne 28 lettres yi composé alphabet arabe bi yépp nag tudd nañ leen ci kàttanu yàlla ñu ngi leen di jox ndaje ci deuxième étape bi incha allahu rabbi jaa ngeen jëf wasalaam